nga nekk ci bopp agence Senelec fii ci Touba ñu gis seen teewaay fii ci euh, journée de lancement Assainir Touba ndax mën nañoo xam lan mooy teewaayu Senelec fii ci ci bis bi. waaw jërëjëf bi leen sante ba pare di rafetlu toogaay bi di rafetlu aussi initiative bi di jot lu si ñëw ci tedd ki si Mountakha Mbacké di ñaan ko mu yàgg fi te ah suñuy toogaay fii ci Channel je crois que mën nañ ko justifier parce que ku wax assainissement wax drainage eau pluviale te ku wax drainage eau pluviale wax pompage te yaakaar naa ku wax pompage wax électricité donc ñu war fee taxaw ci loolu war fee taxaw aussi pour askan wi parce que ndox ak courant ànduñu te yàlla dafa dogal dañoo bokk nag dëkk donc ñu gën a ñaax askan wi pour ñu gën a fàggandiku ah li nga xam ne nag courant moom fi ñu ko mën a utiliser a bëri si diverses formes comme wax naa ne ko drainage bi dëkkuwaay yi ak aussi ku ne nawet rek wax coupure wax aussi li nga xam ne moom mooy gàllankoor yi ci mën am waaw donc moo waral te teewaay fii. ñu wax ngeen ko léegi képp ku wax assainissement wax courant gis nañ courant ni mu jaxasoo ak ndox léegi euh, Senelec ban taxawaay lay taxawaay lay taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni fas nañ ko def au niveau de euh, la ville de Touba. Euh, commune bi di sant monsieur le gouverneur moo di jiitu nañu wàcce nañu sept points yi ñu identifié woon ne mooy points yi nga xam ne moom mooy inondation yi foofu la gën a bare foofu wàcce nañ fa ay points yoo xam ne bu sa sapeur pompier soxlaa ñoom dina mën a dem pomper sans problème donc loolu pare nañ ko war naa toll ci fukki fan. pour terminer Touba ca kanam naka nga gisee seen jëf depuis que nga nekk ici ato ba waaw di ko rafetlu di ko rafetlu initiative bu baax la parce que ñoom ils anticipent sur beaucoup de choses euh, maanaam dañuy taxawal fi nga xam ne xëy na pouvoir public ñoom foron taxaw wax dëgg yàlla di def ay jéego yu a mat donc ñun aussi de notre côté li nga xam ne am nañ ci ndigal moo di leen taxaw ci lépp loo xam ne mën leen taxaw jàpp parce que liggéey sa dëkkab suñu taal bi ñu ñëpp ko bokk ku def sa bopp nga bi ak ñoom gën a ratax gën a dëgër en tant que talibé moom lañ fi ñëwee rek di sant am xol bu sedd guy ndax lii day wane ne sëñ Touba moom amul tànk ginnaaw tànki kanam la am waa li mu mënoon démb tey la ko gën a mën waaye jëfi Touba ci kanam gi day dëggal loolu. sëñ Touba nag ni ma koy waxee ci ay mbiram te Touba ca kanam firndeel ko mooy bërigo la ci mbartal soo puusee mu dem soo puusul mu dem waa xam nga géej moom soo taxawee bëgg koo kar ak say loxo da ngay sonn rek mbiru sëñ Touba noonu la mel moo tax lii dañ koy rafetlu. di ko ànd ak ñoom en tant que taalibe en tant que membre Touba kanam ndax ku bëgg lu baax rek ci Touba ca kanam nga bokk kon ñun loolu lañ fi ñëwee. nga ko en tant que taalibe en tant que membre Touba ca kanam. tey boo doon joxe message wala soññ ci taalibe yi nga sañ a soññ ci liggéey bu am solo bi loo leen di wax. Mhm. ah ñun ñëpp ñu daje rek te xam ne bët li ciy weex ak ñuul. kenn mënu koo tàggale te liggéeyu sëñ Touba bi moom ñun ñëpp dañ cee war yëngu ndax man damay jàpp ne li xew Dubaï xew Émirats Arabes Unis xew xew mu karam lu fa am rek ci teraanga Cheikhul Khadim liggéeyal na lu liggéeyal nañu lu ko raw kon dëkk bi lu ñu bëgg mu mel rek mën na koo mel loolu nag li ñu koy may ñoo ñu doon benn dank doon benn say sunu lépp ñu jox ko sëñ Touba te bañ koo boole dara suñ ko defee rek fi ñu bëgg a egg dinañ fa egg